Sénégal 7 TV mbokk yi asalaamaaleykum ñi nga amati mbégte teewaat fii ngir waxtaanee réew mi askanu Sénégal ak euh, lu ko soxal tey nag dañoo fekk si koo xam ne euh, il a un vécu koo xam ne euh, taxawaayam ci réew mi lu am solo la ci wàllu culture ci wàllu xalaat ci wàllu xeltu ci wàllu politique itam ak xalaat yi muy yëkkati en tant que citoyen ngir réew mi mën a baax jaarale ko ci ay kàddoom mi muy faral yëkkati. waaye itam paroles yi nga xam ne mu ngi koy faral ñu koy dégg ci ay euh, wayam way yi nga xam ne yu am njëriñ loolu la Sénégal di ci jàngat lu bëri Sénégal itam di si jàng lu bëri euh, Père Ousa Diallo moom la am mbégte mu dalal ñu ñu am mbégte itam nar a sëkk ak moom waxtaan euh, ci tolluwaayu réew mi per ñu ngi lay nuyu kon di am mbégte di la dalal. di waxaat li ma waxoon rek ñu tàmbali ko ci barke bisimilahi rahmaani rahim fatanaa wax sax ci bërku bés bu tedd bi ak weeru yërëm ñu bàyyi barki démb muy ramadaan te ñaante ñaan yépp ci barke géeru géer ñi ndax li ñu tàmbali nii ci barke bisimilahi rahmaani rahim sa borom jàppale ñu yegg ci ko alhamdulilahi rabbil alamin maa leen di nuyoo di leen sant di leen gërëm ndax euh, ñëw bi fii rek dafa sori géej waay dafa sori waaye julli ngeen rek déplacé ñëw loolu rek mbégte la mhm. yàlla na barke bés bi jàpp ci li ñuy def nii mhm. mu am ndam ni bés bi tey bi amee ndam bésu àjjuma bi jërëjëf am nañu mbégte ñun itam ñëw euh, c'est avec euh, beaucoup d'énergie la ñu ñëw fekk si la ndax xam nañ ne waxtaan wi sénégalais dinañ ci am njariñ bu ñu ci jëlee te loolu rek mooy taxawaayu Sénégal set kon ñu tàmbalee waxtaan bi. Mhm. Euh, Père euh, am la Sénégal loo xam ne jot na ko fi dundu ay semaine ci ginnaaw incertitude taroon lool kenn xamul woon fa la ñu jëm euh, xamuñu woon itam naka la ñuy taxawee waaye yàlla dimbali ñu askanu Sénégal itam am taxawaay bu am solo boobu ba tey bi incertitude amee ba ñu traversé. zone de turbulence bi bu jóg taxaw ba fal ñu njiitu réew ban ban lecture ngay am ci évolution positive boobu dans l'incertitude euh, ci bi peuple Sénégal bi def euh, delluwaat sant sa borom rek man na xaw ma noonu laa mel de sant san borom sant bu baax sa borom parce que réew mi xëy na sax mu ngi soog a dal ci guuta boobu mhm. aman ah, def naa depuis deuxième mandat bi si j'ai bonne mémoire mhm. le réew mi commencé jaxasoo mooy mars boobu ñuy wax fa le réew mi jaxasoo waaw 21 mars la de si j'ai mémoire te réew mi jaxasoo jaxasoo jaxasoo jaxasoo ba xol yi tiit mm-hmm. ñëpp jaaxle waaye de sant sa borom ah yi dañu ba ñu ne mag ñi ñaan nañ fi mm-hmm. waaye mag ñi ñaan nañ ci dëkk bi eh, eh, eh, la nouvelle génération tam ñaan nañ mm-hmm. da ngeen yéen da ngeen di nax nit ñi da ngeen dugg di wérdu wérdu wérdu sa gars yi xamuñ ne def na mag ñi rek ay wérd mais amul ku wérduwul toogoo quatre heures matin di ñaan jàmm dal ci réew mi amul ku ko deful ci ñi ma xam donc dama ci sant lool sant sans ah di sant tamit euh, di sant tamit euh, ki fi jóge muy euh, maanaam mon cher ami le président Macky Sall. Mm-hmm. du ma bàyyiwu mukk di wax loolu ndax li ma daan wax rek mm-hmm. relation yi ma am ak amoon ak moom ba tey yi ma am ak moom mm. mosuma ko am ak benn président ca ndeysaan mm, buy dugg sama way yëpp Euh, help me ak benn mosu bu tuuti sant yàlla yëpp dama ko daan wax du nii du nii kenn bañu la naa fekkee nga bukki yi ñoo lay gaañ mais kenn bañu la mais ndeysaan nag xam nga lii eh, kii waxoon mu tudd l'ivresse du pouvoir ak ñi la wër bu la jàppee rek monsieur Baba Kumba am waaye bu njëkk bu doon déglu ñu mu daan déglu ñu mu daan déglu man de daana ma déglu lu leer laay wax déglu kon defe naa tey euh, ni mu ñibbee nii génne nii man moo ma xam a déranger tuuti waaye comme daal waaye lépp rek comme jàmm am na rek ma doon l'essentiel ci nan la la déranger anam gi euh, ci na waaw ndaxte ndeysaan dama ko xam mhm. ba muy dem kër esselé ba ma sañoon laa plus grande première dame ànd ak moom mhm. ñu tàggu réew mi nekk ci avion bi ñu seen leen ñuy dem parce que tamit xëy na comme disent les Ivoiriens même avion tombe mais am na lu ma liggéey je suis pas nihiliste am na lu bari li mu liggéey waa ne ndeysaan ma gis ko rek ma xool moom rek mu tàggoo dem jógee passation bi rek jël avion dem tàllal loxo man ça m'a fait mal sérieusement euh, parce que dama xam nit ki rek dama xam nit ki xam nga xam ne nit ki dama ko xam mhm. xam nga yaakaaroon ne il méritait mieux génn bi génn bi génn bi mhm. dama ko daan yàgg wax ne ko président fexe loo génn par la grande porte et non par la fenêtre sa boo bi yoon est-ce que sax jaar na ci fenêtre bi parce ah est-ce que jaaru ci euh, nuy ko mag yi daan benn porte tool waaw am la mag yi dañ daan dem ci tool ya toj fenn na xam ne bu leen saay saay buggee ñuy jaar foofu mm. pool xondool li daw génn parce que bandi bi da ëppoon ah. doole mm. est-ce que jaarul foofu sama ne bu ma soñoon vraiment la grande porte la grande porte ni ma ko gis woon keroog may ndeysaan mu taxu ci avion bi gaytu ko filmé jàpp ci taxaw tàllal loxo yi xam ne c'est ça la vie. Mm-hmm. waxoon na ne deuxième mandat lay def deuxième mandat def na ko mu ngay dem sourire jàppaat dem kon mm-hmm. loolu moo ma doon engagé waaw. mi mi mi da ngay gis ne également bi mu génnee pale euh, bay wutali aéroport am na ñu ko doon euh, ovationné. waaw également am na ñu ko doon yuuxoo. waaw yuuxoo boobu est-ce que loolu nekkul la résultante de li nga xam ne moom la jot euh, yore réew mi. yaa ngi ne doo nekk ku nihiliste effectivement am na yu yu mu fi def waaye am na euh, yu ñuy faral di wax le bilan immatériel. li nga xam ne immatériel mën na nekk lu taché un peu. waaw tacheté de sang. comme mm-hmm. disait l'autre c'est le bilan immatériel qui est de sang. loolu mm-hmm. mooy la démocratie. waaye xel yi gaañu loolu bu dalee. mooy euh, euh, le bilan immatériel est tacheté de sang mm-hmm. de sang des innocents di ko sama doon waxee ci caaro yi mm-hmm. waaw loolu mooy catam sa loolu yëpp nag encore une fois man man conviction ah mm-hmm. la am bu déglu woon ñi ko jëkkoon bëgg ñi jëkkoon gëm xam nga nit euh, doo ko sa fan mais oyofam oyofam man moo taxoon deux yëpp deux hmm, deux mandats yëpp ma participé mm-hmm. mais boo demee ba am ay bulla balla puydo ay nafiq wër la nga defe ne nag jeex na xam nga ndeysaan par exemple bu toogee bay ba ma dékkee mu naan ba ma neexoon ma def lii ba ma neexoon ma def lii dama tiit man personne dama tiit. li nga yaakaar xalaatu boppam la doon demee. waaw ma nekk ndeysaan. frustration. waaw bu ma bu ma neexoon du def lii ma ne ma ne sama doom ah man dafa dëgg mosuma li ma def nii. mosuma hmm. ko wan. parce que ba daan toog waxtaan nekk d'accord wu ci lii ñu waxtaan ci. mu ne nii laa gisee mu ne nii laa waaye daal euh, deuxième mandat daal. Hmm. <laughs> ça ça a été son erreur et monumentale parce que focus sur benn opposant focus boobu ko gaañ. Hmm. billaahi maa la waatal ne am na boo génnee Sénégal. Hmm. wër wër wër wër da nga xam ne am na lu ma liggéey. libéraux yi d' accord mën nañ sikk sikk boo leen mën sikk wàllu liggéey nañ ko sur le plan matériel. sur le plan infrastructurel. waaw mooy hmm. matériel bi. am luñ liggéey. mais sur le plan immatériel lañu daanoo daan boo xam ne nag. c' est kenn mëntu ko réparer. c' est resté dans comprendre nga. c'est resté dans les annales de l'histoire mm-hmm. quand on regarde les nervis chargés tirés sur des innocents euh, de gos de parcelles leur drapeau la paix. Mm-hmm. tiire ko dans xam loolu tam kenn dootu ko mën a fàtte. loolu nag laa wax ne ne loolu moo doon erreur am yàlla baax na nag ñaan ñi jàpp ñu ba la fin mm-hmm. yëpp dal kooku daal kooku nag le peuple lañ koy remercier. le peuple. le peuple mooy peuple bu mature xeexatuñu defatuñu dara di xaar élection yi rek. Mm-hmm. c'est sérieusement man xaw ma woon ne eh, on un peuple aussi mûr. sérieux lu ma la nëbb de man mii. Mm-hmm. ba bu ñuy élection seetaanu ma dama na patt rek. à la fin dégg ma ne ah macha allah mm-hmm. macha allah peuple bi léegi xam nañ ni au ñuy dem di reyante ji seeni carte la ñu yor kooku nag dañ ci sant suñu borom. sant ñaanu mag yi parce que tamit mag ñi dañ defar réew mi rek xale yi dañ koy weddi